الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا بلغ رساله القران وادى امانه البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله يقول المولى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير mbokk jullit yi ginnaaw bu ñu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi suñu xutba tey mooy alqudsu aqida jàkka jooju ñuy tuddee masjidul aqsa te mu nekk ca barab bu ñuy wax Palestine jàkka jooju pas pas la ni ñuy fasee ne yàlla kenn la Muhammad yàllaa ko yónni di fasee ne dañoo war a julli koor joxe azaka aji màkka noon lañu war a jëlee jàkka jooju dugal ko ci sunuy xol lu tax ndax dafa bokk ci sunu pas-pas xam ngeen ne ku dégg aaya bi nu jàng ci waxtu wi nu toll sa xel dana dem ci président Amérique bu tudd Donald Trump xam ngeen ne fan yi ñu nekk réewi islaam yépp ñoo ngi yëngu ndax wax ji mu wax ne dañoo war a jël jàkka jooju jébbal ko yahud yi te xam ngeen ne lu tolloog nangami at jàkka jooju moo ngi jooy moo ngi jàmbat ni ko yahud yi def lu tax ñu ne jàkka jooju dafa bokk ci sunu pas-pas mooy aaya bi ñu jàng ak hadis yi ñëw ci kanam sunu borom subhanahu wa taala mooy ki dogal jàkka jooju nekk première qibla ci lislaam waaye mu nekk raña rañaanu kaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu borom wax ci qur'an ne subhana alladi asra bi abdihi sell ñeel na yàlla mi nga xam ne moo rañaane ab jaamam sell ñeel na sunu boroom subhanahu wa taala sell ñeel na ko ba kenn du ko dendale kenn walla lenn moom yàlla moomu mooy ki rañaane lan mooy rañaan ma maana al isra lugatan wa istilahan lan mooy rañaan ci làkku arab waaye lan mooy rañaan ci diine ci sharia al israu lugatan huwa sayru bil layli wal masyu fihi rañaan buñ ko waxee yàlla ne maa rañaane yonent bi ñuy dégg baat bi rañaan rañaan guddeeg bëccëg léeg-léeg sax nga romb guddi benn tànt nga ne lu xaw fi ñu ne dañuy màggal rañaanu yonent bi soo ne ñooñu lan mooy rañaan ñu ne ah ñun daal dégg nañ tey la yonent bi saa sallam demoon kaw asamaan al isra mooy dox guddi assayru bi leyl wal masyu fiihi ku génn ci barab guddi jëm barab loolu mooy al isra lugatan su fekkee istilahan nag ci sharia mooy al intiqaalu bi nabi sallallahu alayhi wa sallam min al masjidi al haram ila al masjidi al aqsa laylan ala daaba al buraq ci sharia islam lan mooy mi'ra isra mooy al intilaq mooy bàyyeeku départ bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam départ ci jàkka ju ñuy wax masjidul haram muy makka mu teere ji masjidul aqsa ca Palestine waaye ba mu koy def ban heure la ko def guddi lan la war benn daaba bu tudd alburaq loolu mooy al isra lan mooy miraaj lugatan ñaar la al isra wal miraaj al isra mooy voyage nocturne mooy tukki guddi miraaj mooy ci làkk arab الذهاب في الصعود والارتفاع isra mooy ci suuf lay nekk départ barab ñëw barab miraaj nag départ ci suuf jëm kaw asamaan loolu mooy miraaj al uruj jàngeen ci suratul maarij taarujul malaika malaaka yi dañuy yéeg jëm kaw asamaan ci yàlla tabaraka wa taala loolu mooy al miraaj mooy yéeg jóge ci suuf jëm asamaan ci sharia lan la miraaj di tekki mu ne al ala allati urija binnabiyi sallallahu alayhi wa sallam alayha wa saada alayha min bayti almaqdis ila sama miraaj mooy jumtukaay bu yonent bi utilisé war ko jógeeg moom place bu ñuy wax masjidul aqsa jëm kaw asamaan ci borom bi tabaraka wa taala kon loolu mooy al isra wal miraj loolu nag ma nga amee woon ca masjidul aqsa kon jàkka jooju yàlla wax ci alquran jàkka jooju dafa bokk ci sunu pas-pas ni ñu gëmee makka ni ñu gëmee médine noonu lañ war a gëmee masjidul aqsa waaye mbokk julit yi wax ji mooy tey ana ban temple bu yahudi moom bu julit ñu occupé ci àdduna bi anamu ngeen wax ma dëkk bu mu nekk ana ban église bu julit ñi moom occupé ko tey ngeen wax ma ban dëkk la nekk waaye ana tey jàkka juy jooy ñaata se ñaata at ci kanamu jullit ñi guddeeg bëccëg nga am ne jullit ñi dafa bokk seen pas-pas dañoo war a dem julli ji fa mais kenn ñemewut a dem doo gis mukk ci àddina bi ku takk valise am laxasaa yu yor ay bagage am nga ni ko foo jëm mu ne la masjidul aqsa doo ko gis mukk doo ko teg bët bi ngeen nekkee Sénégal ba léegi gisagu leen ku ko def daay man nga dégg ku ne maa ngi dem Makk alhamdulilah maa ngi dem Médine mais masjidul aqsa ndax gis ngeen ko fa dem lu tax mënuñu faa dem loolu mooy wax bi jàkka jooju huwa saani masjid buniya alal ard mooy ñaareelu jàkka ju ñu tabax ci kaw suuf ñaareelu jàkka première jàkka bi ñu tabax ci kaw suuf mooy Makka masjidul haram ñaareelu jàkka mooy baytil maqdis loolu hadisu abu zar moo ko leeral abu zar nee na qultu ya rasul allah ayu masjidin wudia fi l ard awalan qaala al masjidu l haram abu zar nee na maa jàkkaarloog sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma laaj ko ma ne ko ban jàkka la njëkk amal ci kaw suuf moom yonent bi mu ne ma al masjidul haram mooy kaaba qultu summa ayyu ma ne ko ban moo ci tegu qaala mu ne ma al masjidul aqsa mu ne ma Jérusalem masjidul aqsa ci Palestine booboo ci tegu qultu kam baynahuma ma ni ko lan mooy différence bi ñaata at la bee jiitoo bee Abu Zar nee na yonent bi ne ma arbauna sana 40 ans ñeen fukki at lañ tabax makka ba mu am ñeen fukki at ñu doog a tabax masjidul aqsa ñan ñoo ko doon tabax jinne yi jinne yi ñoo ko doon tabax ca jamono Suleymaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laa tashaddu rihaal illa ila salaasa masajid kenn du takkaayu jël say bagage laxasaayu yenu ko wala ngay dugg ci oto wala ngay dugg ci bato wala ngay dugg ci avion wala ngay war fas di tukki jëm ci barab di ziyaare ji lu dul ñetti jàkka loolu de waa Sénégal mën nu ko dégg kenn du sonn ci tukki di ziyaare ji jàkka lu dul ñetti jàkka loolu ñun mun nu ko dégg ñun loolu loolu mun nu ko dégg lu tax ndax ñun yaakaar nañ ne lépp fii la nekk ndeke yonent bi dafa tere yow jullit nga laxasaayu yenu say bagage war waruwaay jëm ci barab bu ñuy tuddee jàkka nga koy ziyaara ji yonent bi nee na lu dul ñetti jàkka rek nga war a def loolu ñetti jàkka moo tax ngay sonn ci tukki ñetti jàkk allahu akbar illa ila salaasa masajid ñu ne yonent bi ban ak ban mu ne al masjidul haram wa masjidi wal masjidul aqsa hadis bi mutafaqun alayhi la ñetti jàkk moo war a tax ngeen sonn pour tukki ñu ne ban mu ne màkk boobu ngeen di wax yéen waa Sénégal jarta dem yonent bi nee na boobu dong nag moo jara tukki boobu xam nga da ngay dégg ñu ne màkk nga dégg ku ne waa foofu da jarta dem la fa nekkoon yëpp dindi nañ ko fa moo ngi fii fan kan moo ko fa dindi ñan ñoo fa demoon yenu ji ko di ko indi Sénégal ñan la ñooñu ku leen yónni bañ ko indee Sénégal fuñ ko teg fan la Makka jarta dem yonent bi nee na boobu dong moo jara tukki ñu ne ko ak ban mu ne wa masjidi bii bii ma taxaw di wax ak yéen sama jàkka ji ñu ne ko ak ban mu ne masjidul aqsa ñett yi yonent bi nee na moo jara tukki waaw yonent ñett yooyu lan mooy seen ngëneel ku fa julli ñaari ràkka am na ci Sénégal jàkk joo xam ne boo fa jullee ñaari ràkk am téeméeri ràkk léegi nga dégg ku dëgër fi daane am na kay palaasu sàngam ku ko wax d'accord nañ am na yow yaa ko wax kan moo wax loolu ndax ci diine ñun dañuy jekki-jekki rek daan ne palaasu sàngam ku fa toog wala ku fa julli wala ku ko raay wala wala rek am tiyaaba ndax ñun dañuy jekki-jekki rek wax benn wax boobu soo ko laajee léegi ci biir dëkk bi nga dégg ku taxaw xaacu aalu daan ne jàkka sàngam ku fa julli yàlla baal la billahi wallahi wa taalaahi boo laajee loolu ci biti léegi am ko tontu loolu waaye ñoo ngi laaj mbokk boobu loolu nga wax waaw dëgg la ku fa julli yàlla baal ko loolu waxu kan la ndax waxu yàlla la ndax waxu sayduna muhammad la ñun nag lii ñuy wax waxu muhammad la biñ ko waxee ba pare wax nañ fu mu nekk nee nañ hadis bi muttafaqun alay ku jóg seeti ko kon buxaari ak muslim nga xool dig ko gis wala doo ko gis jëlee nañ ci imaamu tabraani mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na assalaatu fi lmasjidi alxaraami bi miati alf sala ñaari rakka ci biir kaaba moo ngi tolloog téeméeri junni julli ci ñun fii lu ñu julli ñaari rakk allahu akbar dugg ci kaaba gi kabbar julli ñaari rakka ne assalaamu aleykum tiyaaba ñaata nga am miatu alf sala miatu alf téeméeri junni julli nga am boobu mooy jàkka makka kaaba gi ñu ne yonent sa jàkka nag mu ne wasalaatu fi masjidi bi alfu sala sama jàkka ku fa julli julli ñaari rakka tolloog naag ku julli junni julli feneen fu dul foofu fële fan la gis ngeen màkk ni mu rawee jàkka yonent bi ñu ne ak fan mu ne baytil maqdis foofu am na bi xamsu mia sala bi xamsu mia gis ngeen masjidul haram nu mu rawee masjidu yonent bi masjidu nabawi gis ngeen masjidu nabawi nu mu rawee masjidul aqsa juróomi téeméeri julli ñetti jàkk yooyu dong lañ wax ñoo am tiyaaba ñetti jàkk tey xoole nañ ba jàkka jooju moo ngi ci loxoy yahud yi waxuma dara waaye président Amérique yàpp jullit yi nga xam ne jullit yi tey boo leen doon wàññi ci kaw suuf nekk nañ milliard ak lu teg waaye bu leen lim bi yéem ndeysaan bu leen lim bi yéem damay wax ak sànq benn sama benn papa mu ne ma dafa am benn sëriñ bu ñu indil reer ñu teg ko ci kanamam ndeysaan mu daal di xool bool bi ba ci yàgg mu ne ngel ɗo booliyel de julɓe mbawa ɗum gaynude ngel ɗo booliyel julɓe mbawa ɗum gaynude mu ne bool bi ñu ma taajal de manar ko reere julli di mënuñu koo jeexal ñu ne ko ah sëriñ bi yow reer bi di tuuti tuuti nga ni julli di mënuñ koo jeexal te Sénégal ay julliti kese la mu ne déedéet ay jullikat ñoo bari waaye julli di dañoo néew jullikat yi ñoo bari jullikat yi ñoo bari mais jullit yi dañoo néew wallahi wax na dëgg ñii julli ñoo bari lan moo ñu ñàkkaloo tey masjidul aqsa lan moo tax jullit yi perte ko mooy yonent sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko yonent bi waxoon na jamono ngi ñëw ndeysaan maa ngi nii tiim mu jëntalu jamono yàlla di ma ko jox image ma gis yéeféer yi di jiiroo jullit yi comme jullit yu toog ci boolu ceeb di ko jiiroo noonu la yéeféer yi di jiiroo jullit yi saxaaba yi mënuñu woon nangu loolu seen xol da ko doon bañ kenn ci ñoom daan ne a nahnu qillatun yawma izin ya rasulallah xanaa day fekk ñu tuuti ñu nekk ñetti jullit ci àdduna moo tax ñu ñuy jiiroo yonent bi ne ko déedéet bal antum yawma izin kathir walakinnakum gusaaka gusa usayn da ngeen di bëri lool xool leen tey Sénégal ñaata lañ quatre-vingt-quinze pour cent musulmans loolu fan la feeñ fan la feeñ 95 pour cent musulmans ñoo ngi ci décembre ñoo ngi préparé weer wiñ ne yàlla dafa am doom ñun ñëpp ñoo ngi jënd ay kado kado yaa ngi ci marché yi fees dell ñan ñoo koy jënd jullit yi yéen ñii julli si jumaa yéen a koy jënd wala ñenn ci yéen ñoo koy jënd luñ koy dee dañ koy jox seeni doom kado décembre weer wi gën a dangereux ci àdduna mooy weeru décembre ndax ci lañ saaga yàlla yàlla mu ne doomu aadama daf maa def ñaar satamani ibnu adam te wa ma yambagi lahu an yashtumani allah allah yàlla nee na doomu aadama daf maa saaga te yellul ci moom moom doomu aadama mu may saaga man yàlla est-ce que yàlla na wa ma yambagi lahu an yastumani waruma saaga lan laa ko def ba mu may saaga ñu ne yàlla ban saaga la la doomu aadama saaga yàlla ne awma jabar doomu aadama ne am naa doom awma jabar ñu ne am naa doom allahu akbar nañ ko wax tey benn xalifa ci dëkk bi ne la kenn fekk ngay reer ginaar mu ne la yow da ngay reer nga ni ko waaw mu ne xanaa xamoo tey sa papa moo doon ngénte fële te sa papa amul foofu jabar ndax reer boobu di nga ko yeggali loolu la ñu wax yàlla fi mu nekk ni ñu ngi defar tali yi ñoo ngi defaraat pot lamp yi ñoo ngi pentiraat ñoo ngi defar garab yi pourquoi parce que yàlla dafa am doom allahu akbar jinne yi seen bopp bi ñu déggee loolu jinne yi dañoo téye seen gëlmiñ njoom mi jinne jinne mii ñu naan ñun ñoo ko gën bi mu déggee loolu da koo weddi jàngeen suratul jinn yàlla mu ne qul uhiya ilayya annahu stamaa nafarun من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا جن ñoo de ñu ne ñun duñu bokkaale yàlla bopp wa annahu taala jaddu rabbina ma taxasa saahibatan jinne yi ñoo weddi loolu ne yàlla amul doom chaque jour ñu jàng qul huwa allahu ahad chaque jour loolu bokk na tey pas-pas yu yàqu yi au lieu que nit ñi gëm yàlla gëm yàlla ak def diine julli kese su vendredi jotee ñu gàddu suñuy kurus ak suñuy sijaada ñëw allah akbar asalaamaaleykum teg ko fële daan na yàlla ba juma bii di ñëwaat ñu ñëwaat juma allahu akbar loolu tey dafa tax ñu perte masjidul aqsa benn yahud day wax ak benn jullit benn jullit moo doon wax ak benn yahud naan ko bisa ngi ñëw danañ leen rey danañ leen génne Palestine danañ nangu masjidul aqsa seen loxo yahud bi reetaan ne ko loolu de ñëwagul loolu de du léegi waaw du léegi de yahud bi ne jullit bi xam nga loolu kañ la mu ne waaw mu ne bu ngeen jullee fajar comme ni ngeen di jullee àjjuma de loolu dina nekk bis bu ngeen jullee fajar comme ni ngeen di jullee àjjuma ngeen jullee noonu fajar ci jàkka ji loolu ban jàkka la tey jullit yi dëkk boo yeewu dëkk boo fanaan dëkk boo fanaan soo yeewoo ji dem jàkk boo demee ci jàkka ji ñaari sàpp nga fay fekk wala benn dëkk boo dem nag ci dëkk jullit yi dëkk boo dem laa wax soo yeewoo fajar ci kër yow yaay ki fa gën a baax nga jàpp jëm ci jàkka ji ñaari sàppe nga fay fekk mës ngeen gis julli suba comme ni ñuy jullee ajjum mës ngeen ko gis wax leen ma jàkka jooju fu mu nekk nii ñu jullee ajjuma nii ajjuma ñëpp nekk ci biir ci kaw fees ci biti biir kër gi mbedd mi tali bi waa léegi yéen ñuy julli si ajjuma xanaa fajar moom du fa du farata ah fajar moom fan lañ ko war a jullee limaza parce que pas-pas yee yàqu dañoo xaaj diine lii dinañ ko def lii kenn du ko def loolu moo tax julli di yoon jox yonent bi saa salaam mu muy wax ak saaba yi bal antum yawma idin kasir da ngeen a bëri lool walakinnakum xusaa ka xusaa u sayl da ngeen a bëri waaye da ngeen a war leen mbalit taw bu tawee ba taw bi foor ba ndox mi di walangaan ci mbedd yi noonu ndox mi di rombee mbalit mi di ko yóbbu loolu la yonent bi wax da ngeen a bëri lool waaye da ngeen a mel ne mbalit ixwat al iman aqulu ma tasmaun wa astaghfiru llah li wa lakum fastaghfiru innahu huwa alghafuru rahim alhamdulillahi wahda ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله يقول البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم بالمدينة نزل على إخوال على أخواله وأنه صلى قبل البيت المقدس ستة عشر شهر وسبع عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلة قبل البيت sunu yonent alayhi salaatu wasalaam wax na ci hadisu Azib Barra nee na yonent alayhi salaatu wasalaam bi mu nee cëpp Médine julli na jublu baytil maqdis juróom fukki weer ak juróom benn waaye mu ngi doon ñaan yàlla tabaraka wa taala yàlla daal di koy jubal masjidul aqsa masjidul haram kon gis nga yeneen balaa muy jublu màkka fan la njëkk a jublu baytil maqdis ba jàng ngeen bu ngeen demee madinatul munawar di ngeen fa fekk jàkka joo xam ne ñaari xibla la masjidu xibla tey ni xibla bi da koo jublu masjidul aqsa xibla bi mu daal di jublu masjidul haram sallallahu alayhi wa sallam waaye mbokk yi lan mooy lan moo tax ñu ñàkk masjidul aqsa tey lan moo tax ñu yab jullit ñi ba ñoom rek la ñuy mbugal ci àdduna lan moo tax tey jullit ñi la ñuy torturer ci àdduna lan moo tax jullit yi mel nii nu mel te bëri bay bëgg a dee dara waru ko lu dul dañoo bàyyi yàlla tawxiid la ñu amul yàlla moo nekkatul ci xol yi yàlla moo nu jaralul dara loolu mooy lu njëkk tawxiid lañ ñàkk xamatuñu yàlla bal dañuy bokkaale yàlla ak leneen partout kenn dootul kenn gëmatul yàlla ñëpp seeni intérêt la ñuy xool ak seeni bëgg-bëgg ak la ñu fekk seeni maam ak seeni baay di ko def ñaareel bi mooy kenn jàngatul alquran xamatuñu téere bi ban mission la yor ci ñun loolu bokk na ci li ñu alak kenn gëmatul yàlla kenn gëmatul quran ndax buñ jàngee alquran danañ fekk alquran lim nuy gëmloo dañ fekk alquran lim ñuy jàppaloo lan la ñuy bàyyiloo jàkka ji alquran moo nu ko jàppaloo ndax dégg ngeen léegi mooy rañaanukaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàkka jooju nga xam ne baarak naa xawla la ko wër yëpp la yàlla barkeel keroog ba fa yonent bi ne cëpp ànd ak buraaq fas ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam waroon ña nga yeew fas ba keroog ca buntu jàkka ja yonent yëpp yàlla dekki leen sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jiite leen ñaari rakk fa la départ jëm kaw asamaan moo tax ba mu ñibbisee Makka yéeféeri Makka di weddi mu ne leen moom sax waxu leen jëm naa kaw asamaan déedéet def leen ne biig yàlla defal na ma tawfiq jógee naa masjidul haram jëm masjidul aqsa gars yi ne ko yow yow yaa doy waar yow lu ñuy tukki weer te ay gëléem la ñuy war wala ay fes yow nga fanaan fii yeewu ne dem naa ñëwaat mu ne wallahi sax dem naa fu ko raw ndax jóge naa masjidul aqsa jëm kaw asamaan ci borom bi tabaraka wa taala est ce que ñun xam nañ li ñu am kon est ce que ñun dañuy nekk fi rek di lekk di naan ñuy mbugal islaam di toroxal jullit yi tey bu ñu dooree ñii bu ñu jeexee suba ñu dem ci ñee amul benn dëkk booy dem tey ba nga fekk jullit ñi ñu am yëg-yëg ci seeni mbokk barki démb bu ñuy xutba fi lan la ñu waxoon mooy Burma Birmanie ñan lañ doon toroxal foofu jullit yi ñan lañ doon toroxal buddhiste yi bu teyee yahudi yi dóor suba nasaraan yi dóor ginnaaw suba buddhiste yi dóor kañ la jullit ñi di yeewu ci li nu nekk ci nelaw yu métti yi kañ la jullit ñi di delluwaat ci yàlla kañ la jullit yi di delluwaat ci ginnaaw sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kañ la jullit yi di delluwaat ci pas pas aqida bu wér kañ waaye yonent bi wax na dëgg tey ku xool adduna bi xam ne ñu ngi ci axiru zaman te yonent bi waxoon na adduna du jeex lu dul xare bu metti dana am diggante yahudi ak jullit yi jullit ñi di rey yahud yi ba ñu nëbbatu ci ay garab garab yi naan leen kaay leen ay yahud a ngi nii nëbbatu ci man ci loolu lañ toll moo tax waa ji li muy wax ni yëpp wallahi ci yoonu yonent bi la jaar ndax àdduna du jeex lu dul loolu am loolu nag dafa laaj jullit ñi yeewu topp information yi di déglu bu baax xerewlu yeesalaat seen digganteeg seen boroom dëgëraatal pas-pas yi sànni caaxaan ak fo tey ñoo ngi ci décembre weer wii daanaka fo la ba weer wi jeex bu ñu duggee 24 décembre ba 31 ba 1er janvier foo kese la dëkk bi ñan ñooy fo ñan ñooy nekk ci discothèque yi ñan ñooy nekk ci baar yi ñan ñooy nekk ci mbedd yi mbokk yi jullit dafay fiir jullit day bëgg diineem boroom xam-xam yi dañuy wax ne weer wi ku la ci jox kado nga jël ko sax araam na kado kado ku la ko jox ci weer wi nga jël ko sax dafa xaraam lu tax xam ngeen ko nan leen delluwaat sunu diine nan leen defaraat sunu pas-pas nañ leen royaat sunu yonent loolu dong moo ñuy mën a dimbali pour ñu jëlaat Aqsa ci loxo yahudi yi loolu kese moo ñu mën a dimbaliwaat ci kanamu yàlla tabaraka wa taala mooy pas-pas yi dëgëraat ñu delluwaat ci ginnaaw yàlla tabaraka wa taala delluwaat ci ginnaaw sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam waaye leneen lu dul loolu jullit yi dañuy yonjox ndax yonent bee ko wax ba ñu laajee yonent bi ne ko waaw lu tax ñu bëri ba pare mais ñu mel ni mbalit mu ne yàlla dafa génn ci seen xol yi ñaar dugal ci ñaar ñu ne ko lan la mu ne xubbu dunia wa kirahiyatul mawt ñaar yooyu la yàlla dugal ci seen xol yi mooy da ngeen a bëgg àdduna allahu akbar bëgg àdduna sahaaba bi doon lekk tàndarma ñu ne hayya alal jihad mu ne baxin baxin ñu ne ko lu tax nga wax loolu mu ne su ma toogee di lekk tàndarma yi damay tardé dugg aljanna mu sànni tàndarma yi daan ne tàndarma aljanna moo ko gën a neex kële dafa takk jabar guddi gi mu koy séetal mu dégg ñu naan yaa xaylallahi kabi takk nañ fas yi ana góor ñiy dem jaay seen bopp ci kanamu yàlla mu daal di romb ndaw si daal di koy jéggi xanzala mu dem mu jihaat ñu rey ko ñu gis malaaka yi jóge aljanna indi ndox di ko sang te yonent bi dafa ne woon ku ñu rey ci jihaat kenn du la sang lu tax malaaka yi sang ko te ñu ne ku dee ci jihaat kenn du la sang parce que dafa fanaanoo woon sobe te dafa war a dugg àjjana te àjjana ku fay dugg da ngay laab ñooñu loolu lañ meloon adduna fee lañ ko tegoon dañoo jëloon adduna téye seen loxo jël yàlla dugal ci seeni xol bu ñu gisul lu ñu xam ñu sànni adduna jàpp yàlla ñun nag dañoo jël yàlla jàpp ci suñuy loxo jël adduna dugal suñu xol bu mbir mi diisee rek ñu ne ah yow yàlla da ngaa diis de ara ñu teg la ne ba ci kanam loolu mooy suñu problème du benn ñee dañoo jëloon yàlla dugal seeni dënn ñii jël yàlla teg seeni loxo looloo tax jafe-jafe am ci dëkk bi looloo tax problème kese la musibbe fulbe taggal yettude allah e julde e nelaaɗo men muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam hutba men hannde wonno al aqsa aqida oɗo jama biyeteɗo masjidul aqsa mo allahu subhanahu wa taala haali e alquran subhana allazi asra biabdihi leylan min almasjidi alharami ila almasjidi alaqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa assamiu albasir oɗo jama mo ganduɗa kanko woni jama tataɓijo e l'islam jama awwal woni makka jama ɗiɗoɓe woni madinatul munawwar jama nelaɗo jama dewɗo hen woni masjidul aqsa oɗo jama hande oɗon gandi heefereɓe ɓeɗo wiyeteɓe yahud lanahumullah hande ɓe kepti oɗo jama walla ko hen ɓe payi ɗum noon holko saabi e ɗum woni enen juulɓe enen yejjiti allah enen ndewe aduna jejjiɗɗen allah e nelaɗo jejjiɗɗen ndeɗo deftere wiyetede qur'an ɗum tagi allah addi tabaraka wa taala ɓeɗo hefereɓe fawi ɗum e dow julɓe il faut nde gartilen haqqillaji ganden julɗo so woppi allah o wawa nafde e aduna julɗo so rewani nelaɗo o wawata wonde julɗo hokkata en gañaari e yeeso allah woni ƴettude allah wadde e ɓerɗe men kono sen ƴetti aduna en waɗi e ɓerɗe men en yahata nelaɗo salah sallam o wi mi jooɗima mi yi heefereɓe ina pooɗodira on hono no mawɓe jooɗi e bool maaro ina pooɗodira ɗum mi yi heefereɓe ina pooɗodira on sahabaɓe mbe mbimo beele oɗon jamano tawi ken seeɗa ken yimɓe seeɗa o wi ala kon heewɓe kono hewɓe hay goto anda no potɗon kono mbaɗon kono mbali ɗum way ni so toɓo toɓi ha ndiyam heewi ina lada ina yaha kala ko tawi e lawol ngol naworto ɗum nelaɗo wi ko noon mbaɗon kono heewɓe kono on nafata holko tagi allah koko yaltine e ɓerɗe mon ɗiɗi nannine hen gueɗe ɗiɗi holko allah nanni hen woni yidde aduna kala mo jiɗa hande koye aduna dagata holno mbaɗanmi hami daña galle holno mbaɗanmi hami resa holno mbaɗanmi hami holno mbaɗanmi hami holno mbaɗanmi hami a nanata mo bi o holno mbaɗanmi hami naata aljanna famɗi ko neɗɗo wi holno mbaɗanmi hami naata aljanna mbokk yi euh, duñu faral duñu tayal di taxaw fii di laajal mbokk yi ndimbal ndax al muslim axul muslim jullit jullit mooy mbokkam ordonnance bi ma yor cent soixante mille et quelque la boroom dafa war a def benn scanner rajo ndax feebar bu metti bu mu feebar biñ ma koy jox ma koy indi ci yoon bi laa daje keneen koo xam ne jabaram dañ koy opéré opéré ba moom tamit ay ordonnance mu génne ko tegale ko ma ne ko am na bu fi nekk waaye buñ demee ñu wax ko jullit yi lu ci waaye man ñu daal di ciy coppati jox la mu nekk ñaari nit kon buñ jullee ba pare mbokk jullit yi kayit gaa ngi nii ku ko bëgg a jënd ñu jox la ko koo xam ne amoo ñun ñëpp ñu dajale dimbali mbokk yooyu ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala yal nañu yàlla taxaw ku taxaw mbokk jullit yàlla dina ko taxaw képp ku sàng ab jullit yàlla dina ko sàng képp ku dindil ab jullit coono yàlla dina la dindil coono inna allaha fi awni l abd ma kaana al abd fi awni axi feeg jullit baa ngi dimbali mbokkam yàlla dina ko dimbali اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم لا تجعلنا جبنا فندعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم وسلم اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله